xam ne nii dañ ñeent wax ne soi-disant ay partisans bu Moustapha Mbeng ñoo ko attaqué kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd ak Babacar Gueye muy monsieur Pape Fall euh, jiite liste professionnelle bu coalition ci élection municipale yi moom mu ngi nii xëy na moom am na ci lu ci leeral monsieur Pape Fall ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum info 15 ñu ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi waaye liñ ci wax du bari. nous gagner sur une victoire Bati battu, mais au niveau de la commune et au niveau du département En ak suñu président conseil départemental monsieur Babacar Gueye du jubilé def caravane sant askanu population Kër Massar Sud ak Nord dans sa globalité pour remercier les efforts effort que nous devons ak accepté bi ñu accepté projet bi nous lui proposer. sur ce note, man ci kanam laa nekkoon mais cortège suñu cortège ay booyu Benno Bokk Yaakaar je bien ci mën a tudd mooy Moustapha lii di doomu maire bëgg fàllu wax nañ ni moo dugg suñu ful ak jaasi ànd ak ay booy ak pompagage di sànni xeer ba toj nañu suñuy oto li may wax ne fii Grand Médine la ñun ñoo ko moom confiance peuple bi moo décidé te moo choisir professeur Babacar Gueye moo choisir Mamadou Bilal Diatta mu neex leen mu naqal leen dañ koy accepté suñ ko accepté wul nag luñ ñu woo rek ñun pare nañ ci. waaw heureusement par mesure de prudence suñu éléments yi ñu àndaloon jëfandikoo professionnalisme ba évacuer soxna yi ñu àndaloon denc leen ci kër yi mais. oto am na yuñ ci toj non loolu waxatuñ ko porté nañu plainte woo nañu brigade de la gendarmerie pour mu nekk témoin xool situation bi ñoom ñi ngi def seen liggéey mais ñun suñu caravane dafay continuer parce que nag mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam maa ngi autorité suñu bëggee jàng nañu alerter ñii yor violence yor sayet di dóore